salaatun kuréel gi ñu ngi koy woowee GARMI GARMI mooy GIE des artisans modernes et innovateurs loolu nag ku ko dégg dina sa xel dina dem ci ne ñooñu ay artisans lañ particulièrement di yëngu ci wàllu ñaw ñu dëkk Touba nekk ay doomu dëkk bi ñu dëgmal lu mel ni Magal Touba 18 safar ñëpp xam événement bi nga xam ne événementiel la bu jotee nit day jóge fu nekk di ñëw di ko taxawee ñun ñu dëkk ci dëkk bi ñu ne pourquoi pas ñu déployer sun ay moins ànd ak suñ mbooloo ñu ñëpp ñu ñëw taxaw ci liggéey ci liggéey bu am solo comme ni mu ñu waree rek. bi taxul jóg kuréel gi waaye daa bokk ci bés yi nga xam ne fu mu egsee kuréel gi jóg waaye kuréel gi moom li ko tax a jóg que téeri la concerné maanaam kuréel la goo xam ne dañ ko sos pour ak jàppalante mën a am ci suñu biir ñun suñu biir mën a ñoŋal suñu métier mën a am kaaraange tamit ci métier bi mën a jot suñu ak ak yelleef ci réew mi parce que ay sénégalais lañ yor a entreprise yoo xamante nii Euh, yu yu ay entreprise yoo xam ne yu ñu reconnaître la mu nekk ay statut yu yu légal loolu moo tax a jóg kuréel gi ak ay geste de solidarité day am waaye nag bés bii nii bu ñu nekkee ci dëkk bi di fi liggéey di fi gagné suñu wërsëg di fi yób gagné li nga xam ne moom la ñu yóbbul suñu njaboot borom dëkk bi aye bés bu toll nii nga xam ne fu nekk la nit di jógee ku wuy ku dul murit sax di ci def ñu jaadu na ñu jóg def ci formel la gu ñu reconnaître bépp këyit boo xam ne war nañ ko am rek am nañ ko ba noppi bi ndigal li jógee nag daf doon yomb trop ci ñun pour ñu liggéey parce que bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi ñu yëngatu article 1 dafay wax ne ñi muy dajale mbooloo moomu mooy mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk benn idéologie maanaam ñoo bokk gis-gis ci liggéey bi ak ci fànn yu bëree bëri kon fekkoon nañu ci te ñun daf ñu fekkoon ñu nekk ay taalibe fo xotti war may dëkk bi mosul bokk ci suñu liggéey gaa mën naa am léeg-léeg ñu ñawoon loo xamante ni lu indécent la lu décent la bokk loo xamante ni xëy na bu ko nit solee génn mën naa am du méngoo ak war may dëkk bi waaye nag ba njëgal jubee ñun moom soxlawul woon ñu daje ay def ay réunion parce que ay murid lañ te xam ne ñun lañ doon waxal duñ xaar ku ñëw jàpp suñu loxo nañu fii la dañ cey daal di dox jëm ca rek directement booba rek lañ bàyyi lépp loo xamante nii mën naa am nekkoon na ci suñu biir métier te méngoowul ak ni ko sëriñ bi bëggee booba lañ ko bàyyi loolu moom amul ñëpp xam nañ ne amul waaye nag euh, la faute à qui parce que tamit parfois ci kër yi la ñuy déparé man damay jur sama doom mu commencé jàng métier deux ans may xaar ci moom xaalis te xam nañ ne fii ñi fi teew mat nañ seere ci loolu liggéey nañ loo xamante nii mën naa am cat ba cat seen patron du ci laal dara te duñ ci yaakaar dara dañuy dem événement day jot ñi fi daan am junni ay jamono néew na trop léegi nag booy dañuy liggéey waa kër ga ñëw leen di séentoo dara moo tax toogatuñ fenn ba jàng métier moo xamante ne nii métier mu mat la bu ñu demee ba mënal seen bopp dara rek dañuy daal di bëgg am embauché ji wala ñu génn dëkk bi xoole leneen loo xamante ni ñoo ngi koy def loolu am na inconvénient bu ngande bu ci nekk boo xamante nii tey duñ ko gis waaye jàpp naa ci kanam tuuti nit dina am tuuti bëgg ku ko ñawal mu jafe ko lool waaye rek yemul ci métier mi rek ci corps artisan yëpp la yem ci kanam tuuti di nga yor sa xaalis am terrain am fer ak ciment lépp bëgg tabax kër te doo gis koo xamante ni professionnel bu la ko defal la. baax a baax a baax biñ koy sos amal nañ ay réunion yoo xam dañ ko dañ ko doon décentraliser ci ay secteurs yu wuute ba tey jii nii benn buntu tëjewul loolu article 1 wax képp koo xamante ni ñoo bokk idéologie boo dikkee ci kuréel gi ñu lay tàllal loxo fas yéene ànd ak yow di liggéey képp ku ci adhéré wu tamit te mun naa am melul nu mu war a mel formelul par exemple lu ñu mën dinañ ko def ci gunge la ba nga am entreprise boo xam ne bu formel la ba nga tamit am accès ci chambre de métier ak ci financement détaillé wala formation yi wala leneen lu mën a nekk loolu lépp ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax tëjuñu bunt yi benn yoon daal bu fekkee suñu message dina ñoom mooy li ñuy wax mooy ñëpp xam na lu ñuy lu wax ne les fonds alloués la culture aux loisirs et ñuy ñaan mu jàppandal gën ci am ci liggéey parce que ñun dinañ def ay effort pour jot ci mais ñoom ñu yombalal ko ñu ko war a jot ba euh, bu ñu defee tuuti effort ñu mën cee teg loxo loolu tamit dina am solo parce que soxla woon nañ dimbal trop ñun duñ ay salarié dëkk day neex ay jamono bu nit ñi lekkut ba suur duñ ñawlu te dañuy lekk ba suur doog a dem ñawlu ji kon am na foo xam ne moom soxla woon nañ dimbal bu baax a baax a baax firaari bil muxtaar min qablu qaadali mukusan wa tafsiran ladal jinni wal bashar رفعت شكورا بعد همد مقلد لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنوم أبدا لو بي على من بي لخير